ñëw fi tey si di teeru ak yéen suñu gan yi muy gan yu tedd di junni ak ñaar téeméeri nag yoo xam ne ñu ngi jógee Europe Europe yëpp nag lañ jóge ndax ku gis xeetu nag yi xam ne nag yi gën a am solo ci àdduna bi moom lañu fi dajale xeet yu bare yoo xam ne ci ñu gën a mën a joxe meew la yu ëpp rendement la loolu nag dafa bokk ci programme suffisance bi ñuy taxawal tey muy fexe di béy dunde waaye di sàmm di dunde fexe di wàññi li ñuy jéggaani bitim réew am réew mënul jëm kanam te lépp lu waa réew mi di lekk dañ ko jëli ci biti waaw ñi ci biti bu ñu tëjee seeni frontière ci biti bu ñu tëjee seen frontière fu ñu jëm kon xiif day am mar am décor am donc jafe-jafe am moo tax ñu ne nañu taxawal mbéy mu bees boo xam ni tey si suba maa ngi jógee fële ci ndakaaru Grand Théâtre pour réceptionner matériel bu ama am solo ci wàllu mbéy mais nee naa ministre bi boo leen waxee li ngeen soxla si ay matériel élevage matériel buy béy ñax mi matériel bu koy góob di ko rouler di ko denc ak usines yi dem ci meew mi ak lépp luy jëmale kanam élevage dinaa leen jëlal loolu ci programme yi ñu def pour que secteur élevage ci Sénégal nekk secteur bu jëm kanam pour que éleveur bi mën a jëm kanam moom ci boppam mën a yokku ba yëg ko bu ñu wax yokkute mooy loo xam ne da ngay jóge fii ñëw fii ci kaw ci koom mais aussi ci li ngay liggéey nga ci gis njëriñ liggéey nag pour mu baax dafa am jaar-jaar dafa am yoon nag yi benn bu fi ne boo ko toppatoo mën na la jox ñeent fukki litre meew gën gaa néew fanweer ak juróom bu fekkee ne litre meew tey ñu ngi koy jaayee yéen produire cinq cent six cent six cent francs waaw kon fukki litre yi déjà muy six mille francs da nga multiplier par ñeent muy vingt quatre mille francs ci bés bu ne benn nag mën la jox presque vingt quatre mille francs ci koppar loolu même oto mënu la ko andil taxi mënu la ko andil waxuma nag welo taxi ak yooyu kon dafa am solo nit ñi changer seen gis-gis ci béykat ak ci sàmmkat ak ci nappkat ndax réew yi ñu dem di jëli nag yi ñooy mooy réew yi gën a développé ci àdduna bi kon ñoom bu ñu mën a toppatoo seen mbéy seen sàmm ak sen nap pour que ñun ñuy bëgg développer comme ñom duñu toppatoo suñu mbéy ak suñu cham lolu moy changement de mentalité bi nak bu jógee Podor di dox ba Tamba koku mënu la may mew mënu la may mew pas possible donc waye nak xamna ni logis gis dafa am pédagogie waxtan parce que mëna forcer ken aussi que nit ki dal fekk ay depuis la nuit des temps rek na nous nga bàyyi ko mais leen masalee yi ñoom gis li muy indi ñu gis nag yooyu ñaar ñett lim la mën indil par rapport ak dina la sonal te amul trop important ci wàllu koom su progressivement danañu dem ci kon monsieur le ministre dafa am effort en tant que c'est un effort pédagogique d'accompagnement des éleveurs pour que ñu mën a ñëw ci mbir mi li ma wax aussi mooy am na lu toll si ñetti junni ak lu topp ci ay nag ñu indi ay léegi dama ne at bu ne dama bëgg minimum ñu tàmbalee ñaari junni ak juróomi téeméeri nag at bu ne loolu ci fukki at bu ko Sénégal defee dana ko jox ñaar fukki junni ak juróom si nag yoo xam ne cent pour cent la ñu ñëw fii te yooyu dañ leen defar ay métis kon balaa muy mot fukki at meew dootul jóge bitim réew di ñëw Sénégal donc loolu mooy gis-gis bi ñu jàppale leen aussi si usine meew yi nu ñuy collecté meew mi donc dama bëgg nit ñi ñëwaat ci mbéy mi ñëwaat ci càmm gi même ñu nekk ci béy yi bu ñu yema wuti ay tool pour di fexe dugg ñoom dem ci élevage bi ak agriculture bi